yéen ko doon laaj yegg si na jaaxle jeex na location day jeex ci mim réew ak social shopping immobilier indi leen ay parcelles la fële ca Mbeey nekk ci région de Dakar quelques kilomètres de Lac Rose da ngay prononcer rek daal di dugg ca VDN 3 bi waaw li ya neex ba dàkk neex teg ci nag parcelles ay prix imbattable prix yu de type de papier délibération mairie ci social shopping immobilier ci xewal rek lay dox kon nak ci 77 417 77 40 wala ci 33 835 08 67 manimbe ni ku fa am ay parcelles wax monsieur hum. le on voit que Cambérène bouge. seetlu nañ ni dëkk bi muy Et il y a un mois dañu ñëw fii ci école Cambérène fii ci CM bi ñu gis ni def nañ pose première pierre pour l'agrandissement du CM qu'en est-il sant yàlla bu baax euh, julli ci yonent bi tàdd bi Seydina Mouhamed Seydina Imam laay nuyu ziar suñu xalifa Mouhamadou Makhtar di ko ñaanal di gudd fan ak wér nuyu mboolem ahlul bayt mboolem kilifay Cambérène euh, santaat yalla lu bax rek euh, ci yalla euh, sutura su defal wax deug yalla projet buñu yëkëti rek ñu ci am ndam ah, projet CM bi comme ni ngeen ko xamé ci walu njàng dañ ko jox priorité je pense que conseil municipal bi am Cambérène vraiment depuis 2022 dafa jox lool solo jàng et bokku na projet yi ñu njëkk def ak ay architecte moy ay plan pour extension CM bi muy CM Seydina Issa ñu taxaw ci. Euh, loolu nag la ñu jël yóbbu ko ci ay partenaires euh, état euh, au niveau du ministère de l'éducation ñu yóbbu ko ville de Dakar défendre ko yàlla suturaal ñu vraiment le maire de la ville de Dakar répond favorablement

pose première pierre bi ñu gisaat beneen pose première pierre fii ci Cambérène terrain jamono pour un terrain à gazon synthétique loolu tamit bokk ci luy tax ñu naan Cambérène bouge qu'en est-il Cambérène bouge alhamdulillah laay waxaat euh, alhamdulilah euh, comme ni ma ko waxee sànq ci wàllu CM bi ñu euh, ñuy liggéeyee ñun ci commune bi yàlla ñu ngi ñaan yàlla saxal ko dañoo am banque de projet banque de projet mooy ay projet yu bari yu ñu teg bu ci nekk ñu koy étudier suñ ko étudier ba mat dem uti ay partenaires bi réaliser ko ci cadre boobu ni ma waxee SAEM bi euh, ci cadre boobu la ñu étudier fii ak ay architectes ay techniciens un projet de terrain synthétique Euh, parce que loolu dañoo gisoon ni bokku na ci vraiment li Cambérène soxla bo xolé sa sport bi sooxe woon ci at yu mujjii parce que amuñu ay jumtukaay infrastructure yi nga xamni mo wara mëna tax jeune Cambérène yi mëna a nekk à l'aise ñuy genn dem Malika fune Dakar Sacré-Cœur di fay xaalis bu bari donc loolu mo taxo ñu jël ko jël projet terrain synthétique boole ko ci projet d'urgence ci secteur jeunesse ak sport yalla suturaal ñu macha allah ville de Dakar comme ni mu ko defee ci CM bi Barthélémy dégg aussi préoccupation bobu traduire ko en réalité et aujourd'hui nous euh, ngi sentons, yàlla xam nañ ni allah bientôt euh, Cambérène jeunesse su Cambérène dootuñu génn ci biti di fay xaalis bu pour football ci terrain synthétique préparer aussi petite catégorie génération bi nous, ñëw ñu mën a teel synthétique ndax moom sport bi nga xam cadre bi nga xam ne la sportif yi pour nous a am ay performance et gëm nañ ni incha allah réussir euh, très bientôt inshallah. allah. ah wa monsieur le maire merci mais monsieur le maire bouge on a fait la pose de la première pierre mais elle a redescos. arrêt d'Escos erreur la bu quelques agents li a xam dañuy def tournée la ci côte bi euh, ay contrôle de routine la ñuy def euh, Dans fi jaar rek gis ay zang yu c'est euh, chef wax a ni une cérémonie de pose de première pierre bi nga comme nous ngeen ko c'est l'autorité administrative le préfet euh, du euh, le sous-préfet des, euh, des Parcelles le maire de la ville, les notabilités coutumières et administratives même le, service départemental des sports donc c'était un projet de l'État de la ville et de la commune de Cambérène donc euh, <laughs> l'olmom yaakaar euh, dara mënu ko ëpp solo ci niveau de représentation ci wàllu état donc loolu erreur la won lu fi jaaroon jàll la ci ay ñaar ñetti coup de fil lañ woote ñu ne ñu non loolu euh, erreur la donc euh, ñu jàll ci leneen ñu ngi ñaan yàlla lundi incha allah ci ñaari fan le travaux yi di démarrer avec aussi une certaine une grande vitesse bëgg nañ sax lu jiitu six mois incha allah terrain bi pare su ko defee ndawu Cambérène mën a am. espace ba nga xam ni macha allah dañ koy jë jëfandikoo comme ni ko seen yeneen naataango yi defee ci yeneen communes yi incha allah. ah monsieur le maire euh, terminer comme ni perspective yi euh, maa ngi dégg coow bu fi am ci wàllu terrain synthétique bi espace bi des li ma lay li may leeral waa Cambérène mooy ñun ci commune bi lépp luy intérêt kamberen intérêt généralu kamberen ci nyidoh, lañuy ñuy dox doxuñu ci lenen lu jëm ci espace bi dess terrain bi di dinañ woté conseil municipal bi nga xamni mom lañu fal conseil municipal ñu waxtaan euh, ak yenen kurel yenen expert parce que non lañuy doxale ci dossier yu bari ñu wax ñu seen xalaat ndax bari na ay promoteur yu intéressé wu sur par partie bi dess bi nga xamné ne war nañ ko mëna exploiter soit ay marché lañ koy def wala euh, station d'essence lañ koy def wala bépp jumtukaay parking moderne ak yoy yëpp ay mbir la nga xamné ne ko étudier euh, ñu xool projet bi gën ci Cambérène bi ëpp njariñ ci Cambérène ñu teg ko fa loolu ci perspective yi yu jëm ci walu terrain jamono yeneen perspective ñom am intéressé na Cambérène lool moy assainissement bi am nañu confirmation ci semaine bi ñu génn que euh, entreprise bi amone ay jafé jafé ci walu décomptam amna lu bari luñ ko fay euh, muy satar donc warna dambali dàmbali bi lu mu gëna a gaaw et loolu maa ngi rassurer population wu Cambérène ñi may wo saa su ni ma wax monsieur le maire assainissement bi donc travaux yi dina reprendre très bientôt ma ngi leen di jox assurance bobu te gëm nañ ni bu reprendre rek inshallah dotul dootul ci ay weer yu néw Cambérène dina mëna am un réseau d'assainissement intégral ñu fàtte jafé jafé yi nga xamné ne nañ ko ci walu Musulman bunyi terdengar. Eh. Saya ini sekali tiga kali ini itu masa kamera besar tuh bunyi rombe. Ini Musulman rumah masih masih be. Karena ini ambil sih kalah. Itu jero. Masa kamera preoccupation lah. Eh, dan meton sama Musulman baru otang ke eh, masa be malin. Demi bego fumai tak sama tangke lagi. Joxe wane la nga xamni mi ngi ñew té fofu lañu tollu am nañu ay promesse ci ay dakar waxtaan naa ci ak le waxtaan naa ci ak yeneen structure de état yu ñu mën a jàppale ci wàllu woowu mais commune bi it prévoir nañu euh, liggéey ci euh, structure marchand euh, ci biir Cambérène donc priorité yi nga xam ni am nañ ko ci at bii di ñëw muy deux mille vingt cinq bokk na ci yeesal marché Cambérène mais tegaat ay yeneen structure commerciale yi nga xam ni incha allah Cambérène lépp lu nga xam ni gis nañ ko ci biti Euh, diko xemem xemmeem bëgg nañ ko fi tek ci walu centre commercial structure commerciale espace de commerce yi nga xamni day dëppook jamono inshallah merci monsieur dimbalante amna na solo lool ci jamono ju ñu tollu loolu mo wala rek mouvement bi di and dimbalante qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes des dons pour les hôpitaux dara mosquée juma école prison pouponnière et internat donc si tu veux vraiment aider n'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51 le mouvement MAD dirigé par le président directeur général monsieur Alisek ce mouvement sa pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 Andre dimbalante solo